keroo ba léegi waaye wax yaa ngi wax nga ni li ci nekk kon li ci desoon rek mooy mu egsi ñu dundal ko te taxawaay bii ngeen ci taxaw ci dundal rafet na lool am nañ ci njortu rafet ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm buñ toogee di déglu suñu day sedd lool ndax buñ ci ginnaaw tuuti rek yàggul dara ngeen sos jotaay bii ñëwoon ni ànd ak suñu Abdou Khadre jox leen tur yàggul dara boobaak léegi wax dëgg yàlla ngeen def ci yitte def ci pëstéef ba taxaw guddi gi mu toll ba ngeen tàmbalee ba léegi xam nga ne yàgg na euh, loolu li wane rek mooy def ngeen ci pëstéef def ngeen ci yitte yàlla yàlla doon leen sàmm yàlla yàlla doon leen taxaw lépp ku ñuy dégg kuréelu xasida yàlla nga ko dégg seen kuréel bii lépp lu ngeen ci mébét ci loo xam si ni lu ñu réalise ci àdduna yàlla leen ko yàlla mottali waaw la leen ci yàlla dencal ëllëg nag moom kenn amu ci sikk sàkk kon ñu ngi leen dooleel sant baax a baax ci dugg sëñ Abdou Khadir euh, yaakaar naa ñëwoon na sax waaye bi may ñëw waxoon na ma bu ma ñëwee jot naa ñëw sax ba dem day wane ne rek moom it yëf yi ñor na ko euh, yéen daal kon sagu kër gi ngeen sagu koñ bi ngeen ñu ngi leen di sant di leen doolee ñaax baax a baax jéego yi wax dëgg yàlla mi ngi dox mi ngi dox bu baax a baax baax wax dëgg yàlla santi ngi sant yàlla baax ñu ngi bu baax a baax a baax mbir moom boo ko sampee da ngay da ngay bañ a yàkkamti rek allah lépp lu ngeen dëgg dëgg yàlla dana leen lu kawe njortu la woon loo xam ne si daal moom yaakaar naa bëri na ñoo xam te kon loolu ak sant la kon loolu yitte la rek yitte ju kawe la ndax li leen seedal ni daal eh, am nañ ci am nañ ci mbégte bu baax a baax a baax am nañ ci mbégte bu baax a baax wax dëgg yàlla ñu toogee di déglu boobu ba léegi wax dëgg yàlla sant nañ bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëfati yàlla yàlla fay leen yàlla yàlla bu ñu yiwu guddi gi romb yàlla bu ñu yiwu guddi gi romb yàlla bu ñu yiwu guddi gi romb bindal leen ko wax dëgg yàlla bindal lu waxal si nii kawe na jot lool ñu ngi leen sant bu baax jërë ngeen jëf ñi fi teew ñëpp yal na yàlla mott bi yéene yëpp Cheikhul jazakumullahu khairan Amin. Amin. Yeah.